Ndeye Daguè Gueye maa ngi lay nuyu Euh, maa ngi lay fay Ndeye Comba. voilà Ndeye Daga Gueye nga jiite kuréelu association des personnes handicapées bu mag a mag tey ji 8 mars ñuy màggal bés bu ñu jagleel jigéen ñi comme 8 mars bu jot rek atum ren ñu tànn pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes ñu lay laaj sa avis ci bés bi ak tamit ci thème bi nga xam ni tànn nañ ko ren. Euh, FM rawatina nag euh, jigéen ñi di sargal aussi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk partout à travers le monde euh, rawatina nag euh, jigéen ñi nekk biir Sénégal ak sama sœur yi nga xam ne ay jigéen ñu am laago lañu te nga xam ne man maa leen jiite donc mu ci bésu bu màgg bi maa ngi leen ci sargal bu baax a baax di wax rek ne thème bi thème bu am solo la parce que boo gisee li ñuy wax euh, innovation technologie ak digital nekk na loo xam ne suñu ko fexee ba ku nekk mën ci jot cëram rek dina nekk loo xam ne luy jàppale jigéen ñi la rawatina nag jigéen ñi am laa ko parce que xëj na am na jigéen ñoo xam ne am na nu ñu bindoo ba nga seeni loxo mu bindoo ba nga xam ne xëj na am na yenn yoo xam ne duñ ko mën mais buñ leen initier ci ordinateur initier leen ci yeneen yu mel noonu xëj na ñoom dinañ ci mën a dem ba nga xam ne lii seen aajo dinañ ko ci faj euh, dinañ ñi nga xam ne du ñu gis aussi bu ay synthèse vocale yi nga xam ne def na installé nañ ko ci ordi ay application ñuy def ci ordinateur yi dina leen permettre ñoom ñu mën a utiliser ordinateur di dégg di dégg nga xam ne moom la ñu bind ñu di ko dégg di xam lan lañ mën a toucher ba mën a utiliser ordinateur euh, c'est aussi pareil ak yeneen type de handicap yi donc yaakaar naa ne innovation bi ak technologie bi loolu soo dee gis li nga xam ne moom lañ naan télétravail maanaam di liggéey ci ordinateur. Hmm. loolu yëpp dina leen ko yombal donc mu nekk lu ama am solo loo xam ne euh, war nañ ko gën a développer te fii nga xam ne moo ci nekk ñu fexe ba nga xam ne dinañ ko saafara ba mën ne ko yombalal ñëpp rawatina nag jigéen ñi am laago. voilà ci àq ak yelleefu jigéen ñi est-ce que jigéen ñi nga xam ne euh, dañu yor laago ñu ngi respecter seen àq ak seen yeleef ci société Sénégal. sénégalaise. Euh, wa li ñu mën a wax rek mooy euh, euh, nekk ñu à part donc ñu nekk yeneen jigéen ñëpp ñoo yem ñu nekk ay ay jigéen ak yi jigéen ñi am yëpp moom lañ am. Mhm. mais dañ fi yokk nag ak yi nga xam ne moom lañ am en tant que nit ku am laam. boo dee xool nag par rapport ak loi yi nga xam ne moo fi nekk pour jigéen ñi xëñ na yaa des efforts yoo xam ne wax dëgg yàlla am na mais il faut reconnaître des na am na application yi des na donc application yi des na euh, noonu nañu ñu intéressé ñun ñi nga xam ne dañoo nekk jigéen ñu am laago bu dee loi yi concerné nit ñi am laago aussi euh, Sénégal def na jéego bu mag ratifié convention internationale bi bi nga xam ne moo moo ëmb way laago yi Sénégal aussi def na beneen jéego bu ama am solo mooy ci biir Sénégal dañoo am benn texte de loi ñu tuddee ko loi d'orientation sociale relative aux personnes handicapées Sénégal adopté na donc vraiment mu ne lu am solo donc ñu koy saluer mais li euh, li gën a am solo rek mooy aussi euh, fexe ba loi boobu ñu mën ko jëmmal mën ko appliquer parce que su boobaa lay jëriñ ñi nga xam ne ñoo am laago depuis deux mille dix loi boobu adopté am euh, mu am ci biir loi bi nag benn lu ñu mën a tuddee un filet social maanaam mécanisme boo xam ne dañ koo teg pour bu mën a fexe ba mën a jàppale way laago yi ci seen faju mën leen jàppale ci seen njàng mën leen jàppale ci différents euh, secteurs de la vie euh, carte d'égalité des chances boobu nag 2014 vraiment lañ signé woon décret bi lancé sax les premières cartes en mille 2014 par le président de la République mais carte boobu ñu ngi doon xaar mu mën a jàppale handicapé yi ci secteur yi ma lim léegi mais soo dee xool rek ci niñ ko jox ñi ko amagum euh, dañuy jàpp ne des na parce que Euh, boo jëlee limu handicapé yi ñi ci ñi ñu ko fi joxagum euh, mën naa wax ne matagul cent mille quatre donc loolu te te léegi bañ ko dugalee ba léegi léegi mu mat euh, jegeñ jegeñ fukki at donc loolu nekk na loo xam ne lu ñu war a gën a baral la pour nit ñi ko war a aajowoo ñu man ci jot beneen bi mooy service yi muy offrir service yi muy offrir aussi c'est vrai que ñu ngi commencé nañ di enrôler maanaam ñi nga xam ne ñoo war a faju mu am ñoo xam ne jël nañ leen pour mutuelle yi mën leen faj mais ba léegi aussi lu bare bari des na pour ñeneen ñi euh, yeneen service yi aussi par exemple njàng mi ak yooyu ba léegi ñu ngi koy topp mais des na te nee naa la deux mille dix la ñu voté woon la wa donc ah fi ñu toll war na mat fukki at ak ñaar mbala ñett yoo xam ne ñu ngi xaar pour une application effective am na nag ay jéego yu ci am mooy yi lim léegi mais nag mm. dañuy wax ne nag des na te euh, loi bi li tax bi mu ñëwee ñu tàccu mooy yaakaar bi ñu am ci application donc application boobu moom la ñuy ñaan vraiment di lancer appel autorité yi pour que ñu fexe ba nga xam ne euh, fa ñu ko soxlaa muy faju bi ñu ko soxla yëpp dinañ ci jot euh, muy njàng mi handicapé yi toll ci jàng dina jàng ñu ñu jàppandal leen seen formation ak nag liggéey bi tamit parce que liggéey moo mën a jox nit ki dignité am waaw donc loolu yëpp daal ñu fexe ba nga xam ne loi bi daal dinañ ko appliquer parce que euh, adopter loi am na solo torop waaye li ëpp solo mooy appliquer ko ba nga xam ne ñi ko aajowoo dinañ ko mën dina leen mën a jëriñ donc je crois que loolu nekk na lu euh, ñu wax ci wàllum autonomisation des femmes maanaam jigéen ñi mën a demal seen bopp bañ weeru wéeru euh, si góor ñi euh, loolu ban jàngat nga ci am Ndeye Daguè Gueye. waaw loolu am na solo jigéen ñi demal seen bopp ñun loolu la ñu xam moo tax sax euh, may wax ne dañu nekkoon benn comité boo xam ne dafa nekkoon ci biir fédération bi comité jigéen nekk ci biir fédération bi di yëngu waaye léegi mu am ñaari at ba ci ñett ba ci ñaari at daal yu teg euh, ñu ngi dañoo am suñu dañoo ne suñu association bopp parce que pour ñu mën a promouvoir euh, jigéenu handicapé bi il faut mu nekk structure boo xam ne moom ci la nekk structure boppam en tant que jigéen parce que avant jigéen lañ la Euh, loolu moo tax euh, ñu ngi yëngatu ci fédération bi di euh, ak ñoom mais li ci ëpp mooy dañu yor suñu organisation te projet bu am solo moo ñu ci jàppale ñu koy wax le projet voix et leadership des femmes ba tax na ak nag structure yi fi nekk ak même si ministère de la femme bi ak euh, action sociale euh, dina ñuy jàppale jigéen ñi pour ñu autonomiser wu mais ñi ciy jàpp dëgg nag mën nañ wax ne fi ñu toll te les partenaires techniques et financiers à travers des projets yoo xam ne jigéen ñi ñu ngi ci di def des formations des projets d'insertion euh, ñu ubbi seen atelier ñu ubbi restaurant ñeneen ñi nekk ci yeneen secteur yu demee noon pour que ñoom aussi ñu ñafe seen bopp mën a amal seen bopp dara euh, mën a bañ a tàllal kenn loxo euh, mën a gagner aussi dignement leur vie je crois que loolu c'est très important. Euh, donc tax na ñu ngi yëngatu mais li ñu gën a soxla rek mooy ñoom problème mu njaay mi ñu ci bëri dañuy liggéey di produire. Mhm. produire ay saak di produire yu bëri bëri di ñëw di tekk di nekk dans l' artisanat surtout l' artisanat euh, dañ ci nekk excellé ci bu baax mais des fois dañuy yor loo xam même suñu sœur yi nga xam ne du ñu dégg ñoom dañuy dañuy def euh, affaire céramique sculpture sur plâtre yu rafet mais dañuy am problème pour vraiment écoulement duñ koy jaale jaay donc euh, je crois que daal euh, jàppale leen ci fànn boobu dina nekk loo xam ne lu am solo lay doon entreprise yi di ci commandé pourquoi euh, ñi nga xam ne bëgg nañ leen jàppale di ci commandé ñu leen di jàppale ci ay exposition bu ñuy dem ñu yombalal leen ko ay foire yu mag ñu yombalal leen ko parce que ay produits très compétitifs la ñuy liggéey produit yu am solo moom la ñuy liggéey ndey kumba léegi beneen laaj euh, ci wàllum politique Ndeye Daga Gueye ñu gis ni euh, femmes yi daal dafa des lu baree bari ba léegi gis nga ni euh, pour ñu am candidate sax wala pour ñu am présidente ça pose problème respecté wuñu parité ban jàngat nga am ci jafe-jafe yi nga xam ni jigéen ñi dañ koy am ci milieu politique ba léegi dañu des gannaaw Euh, merci Ndeye Comba foofu li ma bëgg wax rek mooy il faut dire que aussi pa Sénégal par rapport ak euh, ñu bari il faut dire que def na avancé dans le cadre de l' accès des femmes aux instances de décision par exemple la loi sur la parité am na lu bëri loo xam ne na wax dëgg yàlla euh, indi na ko en terme parce que dañu ñafe woon jigéen ñëpp ak alliés yëpp nekk benn bloc ñu fexe ba euh, xaatim loi boobu ba ñu mën ko adopté ba ñu am une loi léegi ñu nekk ci application bi application boobu nag euh, foog naa taxawaay bi ñu amoon rek bi ñu dee bëggee ñu adopté loi bi taxawaay bu mel noonu mbala bu ko raw moom la ñu war a amaat jigéen ñépp nag comme niñ ko defee woon rek ànd aussi ak tous nos alliés vraiment ci combat boobu ñu fexe ba application boobu mu effective parce que voter loi am na solo applique mais li ëpp solo mooy une application effective donc daal loolu lay wax ni ñu ko defee woon rek ba am loi boobu. Mm. je crois que euh, combat bu am solo boobu bu ñu ko continuer rek euh, dinañu mën a am. l'effectivité de la loi. voilà donc la... Euh, par oui. par rapport ak jigéenu handicapé yi a je crois que xam nañu la participation politique solo bi mu am. ba tax na am na projet buñ ci amoon boo xam ne tax na dernière élection locale yi bari nañu ay jigéenu handicapé à travers tout le Sénégal. Mhm. ñu nekk ay conseillers municipaux ñu nekk participer à leur prise à leur accès aux instances décision. Euh, laaj bu mujj Ndeye dagg Gueye ñu gis ni euh, femmes handicapées yu baree bari souvent li ñuy wax violence faite aux femmes dañ koy dund euh, wante tamit wàllum discrimination ci biir société bi lan nga mën a wax ci mbir moomule ban appel nga ci mën a lancer à l'occasion de ce 8 mars. Ndeye Comba am na solo li laajte parce que violence yi soo dee xool sax dafa xaw a ànd ak tuuti. Euh, yenn fag yi ñuy dund parce que ya y a quelques années dama déggoon à travers un discours du secrétaire général adjoint de euh, de l'ONU mu ne woon sur dix femmes handicapées soo ko xaymaa nga xool ko bu baax presque huit yi dund nañ discrimination euh, lan moo tax loolu c'est parce que soo dee xool rek les questions taxées les ak question spécifique liée au handicap day tax sax ñu leen di fekk te fekk boobu sax soo ko xoolee ba analyser ko day nekk violence ndax day nekk mettit boo xam ne dañ koy dund mhm. donc ça c'est un beneen bi nag mooy par exemple société bi ak ñenn ñi gis-gis bi ñuy am parce que dañ lay gis sax nga am un handicap euh, lu bëri nag duñ ko ci xam bu ko defee ñu jàpp ne yow mënoo lii yow waroo bokk ci lii yow lii am bët buñ lay xoole hmm. sans compter sax nag des dañuy romb nit rek yor handicap da lay xool ba daanu sa kaw sax te du la gis loolu yëpp day wane rek ne ay ay ay sax ay mettit la parce que ku sañoon kenn du la xool yenn xool yi surtout yenn façon xool yi hmm. donc sans compter nag le fait euh, am na ñoo xam ne sax bëgguñu sax seen doom takk ci jigéen bu am laago parce que jàpp nañ ne euh, mënul lii mënul lee et cetera mm-hmm. euh, donc ay préjugés yoo xamante ni encore day dellusiwaat rek euh, sans compter aussi nag le fait que wax nañ ne analphabétisme bi mu ngi gën a ràññee ci jigéenu handicapé yi que si góor ñi loolu day expliquer na système bi xëj na mënu leen jotu leen jàppale ñu mën a jàng mën a former wu mën a liggéey soo mënul su fekkee ne loolu yëpp jaaroo ci te wa am nga soxla war ko faj amoo fooy dem boo def leneen loolu dul tàllal sa loxo donc alternative boobu aussi tax na ñi nekk ci mbedd mi dañuy dund ay violence ak yeneen ak yeneen yoo xam ne vraiment faj na ci yeneen i occasion dinañ ko mën a gën a yaatal mm. mais violence moom lu ñuy dund la ay violence économique euh, ñàkk bi xam nga ak dafay feeñ sax ci coono yi ñuy dund ci sëy bi ak euh, yu demee noonu violence psychologique et morale moom duñ koy dund bari na parce que mm. des fois da nga gis sax même à travers nit ñi message yi ñuy wax dañ ci dañ ci dañ ci laalaale ñi nga xam ne dañoo am laago waaw donc yu demee noonu donc des messages réducteurs yoo xam ne da leen di wàññi du leen yëkkati ne da leen di wàññi donc tout ça aussi nekk loo xam ne euh, vraiment dañ koy dund mais nag aussi organisation yi surtout ñun suñu association yi waruñu fee nekk pour di combattre lu mel noonu changer mentalité yi gis bi ak xalaat bi nit ñi am te nga xam ne c'est pas fondé du tout que euh, ñun dañuy ñëw ko won leen le contraire won leen ne leen ñun nag ñëpp ñoo yem mën nañu def ay résultat comme ñeneen ñi bala sax ñu raw leen pourquoi pas parce que loolu à l'exemple du monde et du Sénégal wane nañ ko wane nañ suñu ay capacité waaw quel que soit le type de nag waaw donc loolu yëpp bokk na suñu suñu combat. <laughs> voilà Ndeye Daga Gueye madame Dieye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité. Euh, jërëjëf waa réew mi maa ngi leen di gërëm bu baax nag vraiment ci occasion opportunité bi ngeen ma am bi ngeen ma may euh, ma mën vraiment exprime wu vraiment souhaiter vraiment une très bonne fête à à toutes nos sœurs du monde à vraiment aussi lancer le plaidoyer pour que une pour une meilleure prise en charge une meilleure prise en compte parce que ñun loolu lañ bëgg bëgguñu fekk ñu dañoo bëgg li nga xam ne moo am ñu fexe ba dugal jigéenu handicapé ci ci biir jàppale leen ba nga xam ne fi ñeneen ñi yem dinañ fa mën a yem. may euh, fàttali ni yow yaa nekk ci bopp comité bu fédération sénégalaise de l'association des personnes handicapées ñu koy remercier bu baax a baax. merci beaucoup Ndeye Comba jërëjëf ku Ndeye Comba jërëjëf ku Ndeye Comba.